dans l'ensemble un bon match comme contre le Brésil bravo à toute l'équipe noonu lañuy tàmbale suñu kàddu ek nag ñu jaajëfal ba Aliou bi nga xam ci ndoteel bi comme ni nga ko digal entre Lyon ñu bëri kat classement bi mu teg amoon nañ ci njàqare ndax kat. voilà on on on avait nga xam ne mooy Kouyaté ñu titularisé waaye c'était une stratégie li ñuy wax mag jeeg na bàyyi ci réew ek jàpp leen moom mi nga xam ne moom mooy Kouyaté fu ñu ko soxlaa il répond présent comme lors de la CAN bu toogee ci bab il encourage les jeunes kon attitude boobee voilà dañ koy rafetlu bu baax a baax pour le zoo de Nottingham Forest vraiment un vrai guerrier. ci 11 départ bi nag la ñuy ñëw ndax Kouyaté dañ ko titularisé en compagnie de Kalidou Koulibaly Moussa Niakhaté. Dans les flancs, on avait Ismaël Adjago comme, euh, comme piston, voilà pourquoi piston. Qui aussi comme piston droite on voulait avec système 4 3 3 contre l'UC, 4 groupes groupe 4 boobee de surprise ne vraiment jouer à l'aise dans son terrain de et de Matar en forme il a confirmé. ca kaw Ismaïla Sarr soxla woon nañ ko moom mi amoon na gaañu gaañ mu des yoon bi ñu war amal avec sa vitesse et sa percussion waaye am na benn défaut dina ci ñëw Sadio Mané commencé na bi jël Habib Diallo ca kaw au lieu que Boulaye Dia ndax kat Habib Diallo ci genre rendez-vous yi comme ni ko contre Brésil voilà kon faaw ñu dugalaat ko bu ko defee kat mu mën joxe dara ca kaw dans l'ensemble comme ni nga waxee vraiment l'équipe était en place dis tactiquement disciplinée Et ce que j'ai aimé mooy que nos deux pistons vraiment il assuré les dédoublements et les centres ca ginnaaw kii nga xam ne mooy Koulibaly accompagné de Moussa Niakhaté impérial ñooy assuré ci ginnaaw bu ko defee kat ñu mën a di jàppale si ñaari piston yi. et que mën li nga ne mooy milieu terrain bi am na benn benn densité bu mucc ay biim gis nañ ko kon may ñu dara kat les lions indomptables de Fesa Aboubacar. bi nga xam ne ci premier mi-temps vraiment inexistant nañ ko wax loolee mooy tax ñu am yi ñu poussé Euh, sinon faute commise si ki nga xam ne moom mooy Kalidou Koulibaly le défenseur camerounais vraiment a été inintelligent ndax voilà dafa accroché kenn mooy Kalidou Koulibaly plante yi transformé par Sadio Mané laata plante bi ñu koy exécuté ce que j'ai aimé mooy que mental d'affaire bi am suñu gaynde léegi am nañ ko. comme ni nga ko defoon contre Équateur comme Iliman mooy dóor waaye ca Ismaïla Sarr mooy ñëw dóor stratégie boobee ñu koy liggéey à l'entraînement bu ko defee kat ki nga mooy tiré mu nekk ci ginnaaw mën a concentré Ismaïla Sarr boo leen seetloo mu njëkk ñëw ci bal bi après Sadio mu ñëw concentration xoolu benn yoon mettre les ballons en force au fond des comme ni ki dëppalee le meilleur buteur le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal a répondu da doon calculer voilà lolé moo équipe bi reculer équipe mooy soog ak ay ndawam ñu ñëw monter en cran vers l'équipe équipe bu ko defee kat ñu metti la pression en certain moment nag géré nañ ko bu baax a baax ki ngeen mooy Kouyaté boo leen seetloo dafa dugg ci milieu de terrain bi ñu gisee comme ki nga xam ne moom mooy Krépin jouer comme latéral de métier au lieu que piston voilà reculer nañ loolee indiwul la ñu quelques jafe-jafe waaye l' équipe kat. ñu concentré wu ndax comme ni ko dans un match de football dafa am haut waaye nag ci moment de faiblesse yooyu kat la xam les grandes équipes kon Sénégal ci fànn boobee on salue le travail effectué par Aliou Cissé ba jàngatee match mi indi war système bi yem rek pay woon na premier mi mooy 3 4 3 Cheikh Kouyaté waaye ñu gis kenn mooy Pape Matar Sarr génnoon de même que bi am nañ ko wàcc ci kaw un peu inexistant est-ce gis na ci boppam. Et ci couloir yi kenn mooy Ismaïla Sarr rien avec ses mois et vraiment à sa vitesse seul défaut bi am na ko nag mooy efficacité vraiment dans ces dans ces arts dans ces arts de match il faut être décisif au moment bi nga xam ne da ngay dugal ñaareelu bi tuer le match bu ko defee adversaire dafay monté waat si pourquoi pas mu dugal troisième bi waaye il fallait mettre le ballon faux de filet waaye voilà ci fànn boobee nag war na ci gën a liggéey bu baax a baax moom mi nga xam ne la passionnaire des générations foot bi Sadio à son niveau Habib Diallo comme inexistant lolé moy tax mu may place am est-ce que système bi gis na ci bopam waye kat dinañ ci gën a liggéey bu baax baax nak gis nañ système bi voilà ça a payé kat et comme ni nga mooy kat système trois défenseur nga évoluer piston dafa laaj ben travail de cohésion bu yag à long terme et que Aliou mën naa depuis depuis depuis depuis longtemps mu ngi ciy bu baax avec son staff ko ñu saluer bu baax baax victoire vraiment amplement méritée des Lions avant que li nga xam ne moom kaan bi nga xam ne voilà beneen match nag lay doon nga wax c'était match amical waaye kat il fallait que ñu am ndam ginnaaw bañ demee la face off bi nekk Algérie daanoon nañu waaye na nga waxte dee nag Sénégal moo dominoon tout le long du match kon ci match bi kat il fallait que ñu am victoire bu ko def ñu retrouver suñu rang et kat voilà avec tous les équipes kat incha ci kan bi on va on viendra en force kat ñu teg suñu titre waaye kat dañ Mon année a vraiment rien à dire va va répondre présent notre positif Ismaïla Jacob nag eh, tey bu ñu jox li du match moom lañ jox vraiment il a il a il a fait un travail énorme dans ce couloir de même que ki mooy Krépin Diatta waaye kenn du Moussa Niakhaté le roc de Nottingham Forest bi nga xam ne mayul dara attaquant ku ci mën a Vincent Aboubakar vraiment dur sur l'homme et que nga dribblé ko yombul dara et que ki ngeen mooy Kalidou Koulibaly était à l'aise bu ko defee muy monté xam ngeen ne monté boobu mu indi sa planti bi def ci ginnaaw Kouyaté bi nga xam ne il a été applaudi par. Diouf pour exécuter le match énorme qu'il a fait durant toute la rencontre et que comme note positive tout le est vraiment répondu présent félicitations Lion de la Teranga que ñi ngi xaar kat li nga éliminatoire mondial 2026 mën dans un mois ñu tàmbale ko ci anam yu mu